salaamaaleykum euh, chers collègues salaamaaleykum monsieur le président de l'Assemblée nationale monsieur le ministre euh, xam naa ne euh, damay commencer wax ne ci constitution bi déjà article 67 article 83 article 103 article 27 dafa ajourner définitivement li nga xamante ni moom moo ñu réunir tey ci assemblée nationale moo am benn particularité bu ma am man je suis député c'est vrai mais je suis aussi candidat à cette présidentielle ñu am deux candidats dans cette dans cet hémicycle loolu particularité la mooy man tey lu mu gàtt-gàtt au minimum près de quarante quatre mille personnes dañu ma accompagner pour ma mën a nekk candidat Thierno Alassane Sall loolu moom moo ko dal tey donc nous ne sommes pas seulement 165 députés da ngeen ciy boole ñu nga xamante ni tey dañu jël seen yaakaar porté woon ko ci ñun pour ñu nekk candidat sa présidentielle ñu yëkkati kaddu ak ñoom seq kaddu ak ñoom donc ñi nga xamante ni yëpp dañu sonn pour être candidat pour abréger les souffrances des sénégalais ñu tey dañu bëgg a dem élection y compris y compris le candidat Amadou Ba donc les candidats yi nga xamante ni yëpp tey sonn nañ nekk ci terrain bi dañu ñëw taxaw pour nekk dem ci élection 25 février 2024 yokkuñu nag la durée du mandat du président li ñu yokku mooy souffrance su sénégalais yi li ñu yokk mooy jafe-jafe askan bi ñun dañu dem campagne électorale ñeenti sénégalais yoo dajal ñett ñi dañ naan la pare nañu ci bennoo bokk yaakaar bëggatuñu bennoo bokk yaakaar donc tey loolu loolu. loolu mooy li nga xamante ni loolu moom moom la askanu Sénégal wax beneen bi nag damay tudd góor gu baax gu nekkoon Sénégal yàlla na ko yàlla dolli yërmande ak leer muy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum dafa waxoon ne am na loo xamante ni buñ koy def ci constitution ka kañ ne moo koy garder garder la constitution dafay garder la confusion les démons les démons yi taxawoon ne sengoor bul dem toogal. démon yooyu ñoo jegewaat Macky Sall tey les démons yi taxawoon ne Abdou juuf bul dem démon yooyu ñoo feesaat dëll ci pale bi tey les démons yi taxawoon daal ne Abdoul daal euh, wadd bul dem ba woo ko naan ko déclaré na yow yaa gagné ñooñu ñoo taxawaat tey fees ko le président aujourd'hui il est seul mais il est seul dans l'erreur et il poursuit dans l'erreur donc jun kii di wax ak yéen tey c'est vrai député la candidat la mais ndaw laa aussi boo xamante ni ndaw yi ñoo ko yónni les jeunes sont fatigués les cimetières les océans tey jii océan Atlantique yëpp ay dëj la xanaa yéen seen doom bokkul ci ñi faatu ci géej gi xanaa seen i rakk bokkul ci ñi faatu ci géej gi xanaa bokk leen tey jii ñi nekk tey jii di souffrir ci chômage bi et ces gens avaient pris rendez-vous avec le peuple sénégalais le 25 février mais leneen li nga xamante ni dafa am solo. waa du ngeen ñu dimbali ngir ñu mën a respecté kàddu gi nga xamante ni moom la ñu amlante ak sénégalais yi kàddu dafa am solo kàddu lañu ñu yëkkati woon kàddu googu la président de la république daane te président de la république dafa am ambition immatérielle dafa am ambition matérielle muy point yeeg yëpp mais dafa am une ambition immatérielle ambition immatérielle boobu mooy lépp lu koy dimbali pour ñu préserver la parole donnée gor yëpp nag gor rek la ñu amoon signature yàggut a du gor nga daan teg ci loxo nit donc moi je pense que ne on peut s'inscrire dans un principe de l'amélioration continue c'est vrai aucun système n'est perfectible mais cela ne doit pas aujourd'hui amener à changer les règles du jeu pendant le jeu nañu bàyyi élection les cimetières sont remplis de gens qui se croyaient indispensables nañu bàyyi élection yi mu continuer les sénégalais en ont assez de cette politique politicienne bi nga xamante ni dafa téye réew mi njàmbaar nag la ñu bëgg a nërmeel ci réew mi ay ndaw ay góor ay jigéen ay mag ay ndaw jóg di dox guddeeg ba suba ak ngoon di wax ak sénégalais yi pendant des mois pendant des mois pour être au rendez-vous le 25 février ñu ne déedéet de façon déconcertante avec une désinvolture sans nom daal di ne élection du am de de la façon la plus simple ki nga xamante ni moom mooy candidat de la majorité effectivement article bi ma cité léegi de la constitution dafa ne gouvernement bi dafa war a dàq loolu irrecevabilité mais comme il n'est pas d'accord le gouvernement n'a pas fait son travail l'assemblée doit faire son travail je vous remercie merci cher collègue monsieur le rapporteur la parole le président vous avez la parole